fas yéenee liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad ci tool xaadim rasul ma jog caw yar ku amul bi yar mata caw bi yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax wedee ko say wax ngay muñ a kay nar moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxe teggiin jadaa jubal mbir foo waxe ak mbaat ñu teg ca ak mbaat su su tax mbaat soo nga wax par la diina nguy jooy ñu nga ma ngiy jooy yal nañu far jooy yépp sunuy lor say foo wax as lëf nit wax ci as lëf te du ca wax lëf lu dul da nar du la ni nar nga du la ni fen nga yow waaye gis nga te wax jamuy cor ndaw dootu ër mag ndaw dootu rut mag day dog na ug mag xañ ko cëram far moo tax ba fan yi gàtt te may yi tuuti te moy yi baree ci kër kër te gii na lay may gudd fan ak way ak jàmm na ko doy moo lay may jur te gii na gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor te gii na gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor moo mat a taqool a na ta kay mool moo mat a taqool mu a taggool day na ta kay mool te du ca yar kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ki am te du jeexal. waaw alhamdulilah. noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkoon ànd ak ñoom nu tàmbu ca ñoom jëm bu jëm mu jëme nu fu fu ñu fu fam lañ jëme loolu rek laay ñaan